ja baaru yàqu ja baaru yàqu lamba ja baaru yàqu teeleel Papa Sow seize ja baaru yàqu xoolal ma seize ay waay waay li bokku si ama suñu waay waay bàyyi leen yii xoolal ma seize xale yaa ngay yàq seize yi mbokk yi mbokk xel si yàlla te xam ne sport foo la lii ngeen di amul sens Papa waxal la ñi nga àndal ñu toog Siteu waxal la ñi nga àndal ñu toog te nga xam ne yàgg Papa Sow yëpp a boo xam ne yéen a boo ko bàyyi boo daane Papa Sow lamb ji génnul Sénégal daane lamb ji génnul Sénégal wax leen ak war waxal xoolal ma xam ngeen lii rafetul xoolal ma lii lii ay waay waay wax si lii làmb ji bu àggee neex eh, waay waay waay làmb waay làmb làmb moo baaxoo coow waaye kenn bëggul woon lii làmb baaxoo coow Papa Sow gaañu na waaye dafa mel ni dafa bëgg a oh, soxla wu ñu woon lii vraiment image yi bu ñu gis baaxul baaxul si image yu làmb ah Alioune la No! Oh, xool nga xadar bi. Oh, yaram bi tàng na ndeysaan dara bi muy génn sa yaram day tàng. waa fils maa ngi leen di bëggee. ñu sant yàlla bu baax. nu ñu gisee yi nu muy def si rafetul jekkul naasul defarul làmb dafa yàq làmb xale yi foog ñu am discipline nekk gor nekk roywaay Sénégal mérité lii dafa la sat bu toll nii def ci ay milliards nga ñëw mel na golo guñ solal tubéy rafetul doomu aadama nañ xoolaat seen bopp nit dafa yiw. di dafa am respect dafa am day joxe cër mais lii rafetul ki faral bis bi def ci xaalisam bu bari ñëw ba tëral suñu grand combat ñu yàq làmb ji tegul ci yoon tey tegul ci yoon ëllëg du dëgg du yoon waroon nañu xam ko def ñu sanctionné ko. actuellement nii dootul bëri. non leeragu ma nag parce que du ma o am du ma président am leeragu ma nag waaye xam naa li jékku rafetul du dëgg du yoon. mais façon mel nii lan la si waa amul làmb war jàng. non a taxaw xam ne taxawaay boo ma sëkk xool ñu ko def ñu sanctionné loolu mooy dégg mbir bu ñu la ko dénkee amul complexe amul raayal amul raay raayal ku newu ci yoon nee naa ko nekk ko ci yoon teg ko ci lii du dëgg du yoon c'est pas normal. du ñu noo ko ko mën a réglé. doyen Papa Malick maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar fils. maa ngi jàmm. waaw maa ngi ci de xanaa làmb nekkul ci jaam waaw papa si làmb jooju la waxtaan papa tey image yi nga gis tey si làmb ji est-ce que làmb soxla na façon image bi. non c'est triste dafa man dama désolé sa boo ma xoolee sax xam ne Euh, nekkuma quoi dama am lu ma metti trop et je pense que ñëpp ñi nga xam ne tey dañu bëgg làmb te yàgg a défendre làmb tey am nañu gàcce parce que lu mel nii bu amee ci làmb tey la ñu nit ñi daan wax dañ koy daal di day daal di nekk dëgg parce que ku ñuy sedd ci gaalu xaj waroon ci nangu lekk mais tey dafa mel ne dañ cee lekk ba tàq ci rip donc tey c'est clair événement bi yàgg nañ ko xaar si te waajal na ko papa waajal na ko promoteur bi sonn na dàq nañ ko dàqati ko. amateurs yi aussi yàkkamti woon nañu xam combat bi fu muy mujj mais ak gis nii c'est dommage euh, papa bi ma gis mënul bërewaat. mais bëgg na ngi jéngu mais mënul bërewaat et c'est vraiment dommage pour le spectacle. mais papa dañu gis ni am na euh, bi nga xamante ni ngi dem si tambour major si te fu ñu nekk moment bu fay dem am na ñi nga xamante ni si dem bi nga xamante ni Papa Sow dem na fa ba lii li kat dal tey dal ko. waaw papa dafa war a concentré ci combat loolu mooy dëgg am na détails yu nga xam ne yow mbër waroo ko lijjanti yow mi war a bëre donc euh, c'est domage que moom mu jaar foofu man bu doon ne maa koy dama koy wax bul jaar foofu parce que c'est assez risques et périls batterie Siteu mi ngi foofu supporteru Siteu yi ñu ngi la tiim boo jaaree foofu musiba mën na am mais dans l'organisation waroon nañu fexe ba pour des raisons de sécurité kenn ku ci nekk fa ngay jaar doo fa fekk sa adversaire wala sa sa waa kër adversaire loolu mooy l'idéal mais papa dañ ko ne fii la war di jaar mu jaar fa problème am c'est dommage euh, loolu yëpp dafay wane ni rek encore une war nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax xool suñu toogaay xool suñu organisation. am nii ban ban taxawaay la war taxaw. CNG na na jël ay ay ay matuwaayam de façon il y a superviseurs am na ay officiels dinañu bind seen rapport le CNG va situer les responsabilités et puis jël. Euh, mesures yi ci war mais li nga xam ne man moom a gën a tiital mooy dañu jëm ci événement yu mag ñi ngi jëm ci euh, Papa So ñi ngi jëm ci euh, nu mu tudd Tapha Tine Boy Niang ñi ngi jëm ci Modou Lo Ama ñi ngi jëm ci Balla Gaye 2 Gris Bordeaux wala Balla Gaye 2 Bombardier événement yooyu tey dangay dem bay posé question ak pression bi ci nag est-ce que arène bi mën na ko mën na ko dékku tiit naa trop je peur pour la lutte jaajëf même bu bëggee bu mënul bëree médecins yi duñ ko nangu. ay waay lii di xeeñ waay li may xeeñ ñi safalu neex. Balla ngi noonu. tey na loxo ndeyjoor bi. Papa mënutul bëre kii ngay xool boo ko xoolee rek nga xam ne mënutul bëre ah, waaw mënutul bëre. non mënutul bëre. non bëre kii nga boo ko xoolee xam ne mënutul bëre. li mu génne si dara dafa bëre. mënutul bëre. ngi noonu ànd ak ñoom Balla Diouf. fi te di def teraanga fu ma neex laay daagu ci famille bu baax di noobu li teg képp ku fi def sa yëfu baa dool ak sa yëf luñ lay xeebe kooku yow la engagé du dëgg ay million laa jël fay ko du dëgg organiser def ci coono sonal leen yéen ameel leen ak ameel ko amateurs yi ameel ko suma sponsor ameel ko waa diaspora bi ameel ko ñëpp kon man gàcce ngalaama wàcc naa dëgg la keneen nag koo xam ni yàlla yi def nañu yare leen neneen ngam neneen di doxala neneen kooku yow la engagé le reste j'ai pas de mot à parce que le dernier moo ne me revient pas ah. image bi làmb soxla na ko ak fi làmb toll jafe-jafe yi euh, Cheikh Mouhamed Fadal da doon sama sëriñ maamin am na question yoo xam ne duma ko bëgg ñu di ma ko laaj du dëgg parce que man damay tàng non tàng non dama lay wax non dama ni du question du ma tàng man nit laa lii dafa neexul dafa naqari mais boo ma nee ay lii ndax lamb soxlaw na ko yow yaa a gën a xam ni image yu mel nii min def soxlaw ko di ko gis parce que dañoo yor njaboot gis nga doomu aadama bu ñu demee ba jël ci ay nit ci 17 million sénégalais nommé leen defe naa ni leneen lañ doon xaar mais li ñu image yi ñu gis tey. lépp ci ñàkk teggin la ak ñàkk yar lépp loolu la indiscipline mais. nañu des ak seen ñàkk teggin ak ñàkk ngor dama ni tu me dis que nii Assane Waalo xol laay waxee man nit laa si eh. damay am lu ma naqari ah. damay sant yàlla ba ma nit ñëpp xamee mais ku xam Pape Abdou Fall xam ko bu baax dee moo ma gënal dund waaye gàcc gàllaama li la waroon def ko mu sama yoon newu man du ma juge du ma àttekat du ma police du ma gendarmerie du ma CNG li ma war mooy wàccoo naag ñoom wàccoo naag amateurs yi wàccoo naa ak journalistes yi wàccoo naag téléspectateurs yi lamb ji di woon direct amee loo kenn ak dama ko def direct à la dernière minute bëgg lu neex Sénégal hmm. mais gàcce laa mujjee comme combat bi en tant que promoteur après a xaar. loolu sama yoon newu ci. yaa la Pape dama ko dégg dama ko dégg. waaw dama ni. maa ngi toog di déglu ñi nga xam ne ñoo yor làmb ñoo koy gérer. Ah. bu ñu xasee ba jël décision. Ah. danaa leen woowaat toog waxtaan ak yéen. Pape Abdou bul ne gàcce amoo ah. gàcce la war lépp def ko. non non du question gàcce man amoo gàcce déggoo ma de. waxin laa la wax def dama ni Sénégal tey gàcce moo fi am. def nañ li ñu doon def. mais xaaruñu woon ci làmb ju ñu pousse ñaari at. troisième année bi. ñu ñëw di ñu tegal plateau bii. mais tey dañ ne organisation bi dañ koo joxoon dañ ñu ne que ni Papa Sow te ni fa la nekk dëkkal Siteu fa la nekk ñu ne loolu noonu c'est mal organisé. loolu suñu devoir ñun man def naa ak yéen loo xam ni du sax sama wall def naa ak ñeneen loo xam ne du sax sama wàll pour parfaire mais dafa loo xam ne liggéeyu CNG la man du sama liggéey. Ah, sama yoon newul ci loolu bu ma dugal man wax dëgg loolu kañ bu mu la naqari euh, mani yow Abdou Fall moom kenn du ko jam naa ni